àdduna amul solo dund gën a ñàkk solo da ngay xool jamono tey ji xale yi ni ñuy solo ana kersaak jom ana ngëm gi ñu doon woote ana lu tax doomu aadama ak mala wara a wute ñaata askan ñoo dëkk ci guerre te doo xam lu ñu jote li waroon a nite ci nitee rot te yëgu ko fu mu koy jotee ñaaw téef tasaaroo ba noot jubak dëgg tumu ranke ay kilifa di jiite caaxaan aka doyadal sufiyanke mbaax jafe na mbon yomb te yàlla yàlla bay sa tool ana fu ñuy jaar ba rëcc ci jamono ju jaxasoo lool ku borom bi xiir ci diine da ngay mel ni ku ngëpp xal soo bërewul ñey bëre dal sa kaw dal di la taqal borom doole compte bloqué néew doole deeg xiif ñi jàpp ci yàlla muñ ñu la jàpp ci wuruj ak siif mbooloo yu safaanooy lañuy ñuy wuyooy mbubboo lislaam bàyyi ndigal dëkk ci tere yi dooleel iblis laam workat la naxekat la yàgg naa njuy ay kàngam ay buur aki baadoo la way farloog way sàggan insaan mooy fàttekat xam na ne noyyi saxul bànneex bu gàtt neexul kon bu araamee seexlul àdduna amul solo lu fiy niru lu neex balaa amab diir sàppi àdduna amul solo lu fi waay am day jeex te ko soppi mu soppi la mala bu fekkee ne sunu dund gépp matul sax benn bés fa yàlla bu fekkee ne at mi wër day dàq suñu fan yi yaakaar gën a tee tas yi bu xas a dem dootul ñëwaat xam-xam bu wóor te yàlla teewul doomu aadama ànd ak seytaan di noccee kanas bu fekkee ne bakkan bu mësa mos dund mësa mos dee faw kon looy xalaat yow bakkan mi nga xam ne yàgg-yàgg moos dee ñëw lan moo waral lëndëmuk àdduna neex la bu fekkee ne say laaf mën nañu laa may nga naaw ba dali feneen fu gën leer te du raaf feneen foo xam ne lépp lu ruu bëgg ci lu baax ma nga fa lay dëgg walla bànneex bi tax ñuy wax fa la fekk baax foofa doon texe gu jéggi dayo dey ku yemoon rekk ci màngi fa ci ngay door a xam dayob taar bu wute lool ak bi ñu miin te du jeex dund gu gàtt gi ku koy jëndee guy sax danga wayul dëddu àdduna nag ku la ciy woo dala bëggal jàmm wuyul dee dafa war a waare donte bindul wayul alxuraan naka noonu tànqam lu gi ëpp na te warul bakkan moom baa doola la li rekk la gërëm bu la jekkoo dalay noot boo ko jekkoo bu ko yërëm bum la jaral jaay sa ngor ak sa diine jëndee dërëm mi nga xam ne ni ko nit ñi def raw na jaamu xërëm àdduna amul solo lu fiy lu neex balaa am ab diir sàppi ngalla àdduna amul solo lu fi waay am day jeex te ku ko sopp mu soppi la mala àdduna amul solo lu fiy nuru lu neex balaa am ab diir sàppi àdduna amul solo lu fi waaye am day jeex te ku ko sopp mu soppi la mala wasalaam